ndax dama jabut ki seen papa seen papa gaañu bàyyi ma xale yi may nekk si waañ bi di togg mu ñëw mu présenté mu ne ma yaay ma nag la mu ne ma kii de nee na dama kaa neex ma ne ma ne ko waa baax na xam nga nit tamit doo koy tey tey tey rek nga xam jikkoom ma ne ko kon baax na ñu fanaan ñaari fan ñetti fan xam nga man damay xëy 5 heures du ma xëy. benn bis ma dem ci jàlloy pour le Fouta joxuñu ma xaalis ma ñëw ma fekk fi xale bu jigéen bi ma ko fi fekkee suba teel ma ñëw ma ne ko yow Kumba xëyoo mu ne déedéet ma ne ko Kumba kaay mu ñëw ma ne fii la fanaan mu ne waaw keroog moom xas ko bu baax sama néeg ma ne ko Kumba xoolal fi ngay teg sa tànk sa papa gaañu na bàyyi ma njaboot daw naa guddi daw bëccëg ma ne ko tey kii ma ne ko kii fu mu dëkk nii asak naa. ma ne ko aseg naa ba fii mu fi fanaan ma ne ko bu amate amati du benn fan ma toogat ay fan ma dem xëy boobu keroo xëy naa ba deux heures ma wàcc xale bu jigéen bu jóg ci néegam dem ci wanag bi keroo laa xeex ak moom musuma xeex ak Kumba Daraame keroo laa xeex ak moom ma ne ko Kumba mu ne naam ma ne ko yow kii xanaa fii la fanaan ma ko ma ne ko Kumba yaa may. voilà mi ngoog euh, Nicolas ñëpp gis nañ ce qui s'est passé problème lesbienne boobu awa mi nga xam ne moom moo incrusté wu ci famille Kumba yaayam doon expliquer problème bi xam nañ nu mu demee ak problème yi nga xamante ne ni awa am na ko fa ba finalement euh, jàpp nañ ko euh, bëggoon nañu xam tey ji monsieur ndaw yow mi nga xam ne yaa boobu combat tey pour accompagner famille Kumba lan moo la boole ci mbir moomu. di saluer particulier di saluer particulièrement les membres du groupe euh, Yeewu Leen euh, le réveil Arsenal sur euh, Facebook nuyu aussi suma doom ji suma xarit bi suma collaboratrice bi Fatou ak ñun on est sociaux maanaam bi ñu tax a dañuy xool d'ailleurs Yeewu Leen avant muy tudd Yeewu Leen mu tuddoon un problème des solutions dañ daan xool loo xam ne xam nañ ni lii daan na ci nit mais moom amul dara lu ci def loo xam ni war na tax mu dal ko ce qui est arrivé à parce que maire bi boo ko déggee man li ma si gën a dugal sax suñu benn xarit moom moo ma yónnee vidéo ne ma médiateur ndax suivre nga affaire wu lesbienne man ko non man yooyu du ma koy seetaan man parce que ma koy seet ma koy mhm. suivre yooyu daal ay mhm. affaire wu actualité d'accord mun ma xool ko bu baax après gën naa lu ñu waxtaan effectivement j'ai vu la vidéo mu tourné ko plus de cinq fois ma koy xool su ma ko wooyee ci guddi gi mu ne ma lan nga gis ma ne ko vulnérabilité maire bi laa gis mhm. mu ne ma c'est exactement loolu moo tax sax ma yónnee la vidéo donc ñun les problème de mœurs de la fille là man xaw moon sax turam maa ngi door a dégg turam nii yàlla xam na ko awa <laughs> mm. euh, ñun taxuñu jóg ñun maire bi mooy suñu problème parce que nga maire boo ko toppee di ko déglu li muy wax mooy ma yeewu njël ma togg ab pël bi mm-hmm. mu abal ma ma delloo ko ñëw togg yaay kumba awar na am jom ki yooyu moom mooy problème am. Mhm. c'est-à-dire que ni. moom voilà précarité bi mu nekk. Mhm. pauvreté bi mu nekk. Mhm. ak moyen de vivre yi muy wut nga xam ni loolu rek la consacrer sa vie. ba pare nag essayer garder sa dignité parce que ku yeewu njël c'est quelqu'un qui est digne. on on peut être pauvre et digne. ça beaucoup de gens ne font pas le ce rapport là. mais erreur la. nit ki dafay mën na pauvre. digne. parce que il y a beaucoup plus un pauvre. que chez un riche. ñun loolu moo ñu dugal ci problème. Mm. alors bi ñu xoolee puisque ñun loolu dañ ci yëngatu. Mm-hmm. di essayer de trouver des solutions contre ci ay affaires yi dafa am baram ci nit ki te sabablu ma comme di daal maire bi ñu si essayer trouver ay solutions on euh, donc euh, avant sax ñuy ñëw ci groupe ñu contacter ay des personnes ressources yoo xam ni qui sont capables de de d'encadrer l'action door a ci groupe bi na indi ko fa uh-huh. concentré wu nag ci maire bi ñun affaire de mœurs bi intéressé wu d'accord léegi tey yéen comment est-ce que vous comptez l'assister et aider vraiment la maman il y a il déjà dans le groupe uh-huh. euh, quelqu'un qui a une expérience avérée uh-huh. ci affaire encadrement en matière de finance bon li ñu bëgg ñun moom mooy mobiliser assez de fonds pour financer ko une activité boo xam ne moom ci la nekkoon mais amul ay moyens parce que wax na ko sax ci biir. Mhm. nee na dama doon jaay jën. mais ma demee ba ci biir kiyul ma dem di waas pour mën ci génn. d'accord donc dañ koy fekk ci li nga xam ne moom la doon def xool nan la ñu koy xëccee. suqali ko voilà. Mhm. deuxième affaire bi moom mooy il faudrait peut-être li nga xam ne moom moom lay dox moom mooy dépense beeg ay kii yooyu. ñu xool nan lañ ko siy jàppalee. Mhm. may ko ceeb may ko diwlin may ko lii bu fekkee dafay fay luyaas. ñu fayal ko luyaas pendant un certain temps ba mu ne ouf daal mën a kii ba pare bi a mën a activité. <laughs> loolu moom mooy euh, ci Fatou rek laay ñëw moom tamit moo sànni ci ay kàddoom euh, est-ce que yéen façon bi rek ngeen am pour euh, dimbali nit. waaw nga baal na balaa may tontu ci laaj bi am solo bi nga ma laaj ma remercier ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci plateau bi. Mm-hmm. di remercier aussi Nicolas bi nga xam ne léegi 2S laay bindee turam à la mm-hmm. donc moom dina comprendre voilà donc euh, li grand bi wax nii boo xoolee euh, dafa nekk loo xam ne dafa am solo. ndax xam nga vidéo bi ñu suñ ko seetaanee dañ ci xool suñu yaay mhm. dañ ci xool dañ ci gis suñu bopp parce que mhm. comme li mu wax affaire vulnérabilité man bi ma ko seetaanee dama jooy franchement mhm. dama jooy sama xol dafa jeex te genre yi ñoo soxla dimbal on a bien fait je sais xaw ma ndax yéen a koy gis te sax ñëpp a koy gis ñi nga jël ay nit di leen baatareel ay xaalis alors que am nañ ko mais kii moo ko yellool man gisoo sama baat baa ngi tremblé tayuma ko. Mm. mais je parle avec émotion. Mm. tu vois donc mm. non du ma jooy du ma jooy yoon Kumba euh, sa sa sa bi voilà donc euh, comme ni ko grand Badou waxee moom taxuñoo jóg. maire bi moo ñu tax a jóg maire bi nga xam ne dañ ko xool gis ci suñu bopp. gis ci suñu maman boo xam ne dañoo jàpp ne suñu voisine la donc rafetul ñun ñuy mëne suñu vie correctement moom muy nekk ci ay problème donc loolu moo ñu tax a jóg xool nu ñu ko assister ba activité bi nga xam ne mi ngi ci woon mu mun koo continuer mhm. ñëw bokkaat ci ñu ñu tolloo benn pied d'égalité voilà d'accord ci ci ci kii bi ci mhm. aspect boobu tamit la ñuy des mhm. rek euh, gis nañ ne aussi jigéen ak jigéen la xëy na peut-être Kumba moo waral wax jooju yëpp sama turandoo boobu est-ce yow tey en tant jigéen am nga temps dem toog ak Kumba wala bi nga waxtaan ak ñoom xool ci situation bi nga xamante ne nii tey jii vraiment ñu ngi ko nekk ak sox dimbal bi nga xam ne soxla nañ ko nit ñi dimbal leen ko pour xool tey jii fan lañu toll. waaw euh, loolu nga wax noonu lu am solo la xam nga man yàlla dafa def may yëngatu ci image damay filmer mhm. donc man dama am benn vision boo xam ne nii xam nga ki nekk ci ginnaaw caméra dafa doy waar ma ciy profité di nuyu sama sama promo promo bi Mouhamed Ba. dañuy gis loo xam ne kenn du ko gis mhm. donc. bu ñu demee ba jël caméra bi teg ko ñëw di wax rek xamal ne am na gis nañ lu ñu ëpp doole damay kontaan loolu toog ak maire bi waxtaan ak moom donc Kumba comme ni ko grand Badou waxee man xaw ma ko. vidéo bi laa seetaan dégg wax Kumba Kumba Kumba donc doo gis dañ naan l'histoire de la de la mère de Kumba. Kumba xamuñu ko gisuñu ko dina ma neex loolu ma toog ak waxtaan ak moom ndax comme ni ko grand Badou waxee donc maa ngi wax grand Badou rek parce que moom mooy lépp moom mooy initier affaire yi. Mhm. boo xoolee vulnérabilité moo moo tax mu dugg ci donc man du ma ko jugé. ndax bu dee affaire mërsëg yooyu am nañu ay ONG yoo xam ne ñoo gën a habilité pour xeex loolu donc man jigéen laa jigéen laa xaw ma fu muy mujjee ëllëg du ma ko jugé mais bëgg naa toog moom waxtaan ak moom yaayam aussi ma waxtaan ak moom xool na lañ ko mën a dimbale voilà d'accord tey jii fan ngeen toll ci ci ci ci sensibilisation bi ak ci dimbal bi nga xamante ni yéen a ko bëgg a apporter euh, maman Coumba bi voilà donc euh, dañoo créer dañoo créer benn benn groupe WhatsApp mhm. comme affaire xaalis daf ci am dafa am benn compte Orange Money donc dinaa joxe sax numéro bi. 77 351 46. répétez 46 78 351. 77. oui 351. 351 46. 46 78. 78 voilà 77. 351 351. 46 46. 78 78 damay fàttali première ñu naan ma répété ma topp ci merci beaucoup. voilà merci beaucoup le mot de la fin monsieur Ndao. bon le mot de la fin. c'est euh, juste pour revenir sur euh, aspect social bi Kumba doon wax ni maanaam euh, gis nga tey jii moi je communique depuis une quinzaine d'années mm. sur euh, les mœurs ni muy muy dawe au Sénégal mais dañu toll ci ay benn virage euh, une des une année charnière des années charnières sax laay wax ci diggante ren par exemple ak déwén par rapport au à l'offensive bi nga xam ni ñu ngi koy mener une certaine catégorie de personnes moi je suis pas contre les homosexuels c'est pas mon problème ku ko mën a nekk ku ko nekk sa kii la mais ce qui est grave c'est que maintenant yaa y a une offensive pour faire de de de de des gens qui ne sont pas des homos def leen ko alors loolu nag li koy gën a indi ci ci fay yi ñuy aw même les pédophiles c'est ce qu'ils font ak taalibe yeeg yooyu c'est de c'est c'est de passer par la vulnérabilité mm-hmm. kenn ku nekk nag mën nga toog ne non lii mënul nekk bu doon man damay bañ mais ba balaa balaa ku ku mën a bañ mën a nangu c'est-à-dire que nga am moyen bañ pour mën a bañ nit ki dina nekk ci loo xam ne du ko kii ñun nag Euh, en réalité loolu moom mooy suñu xeex principal moment bi symbole bi rek la si quoi merci beaucoup monsieur Badou Ndao ñoo ngi koy sargal bu baax muy médiateur gis ngeen groupe bi nga xamante ne taxawal nañ ko composé plus de 2000 membres aujourd'hui 22000 euh, membres d'accord donc ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci taxawaay bi Fatou Mbaye merci beaucoup euh, pour la disponibilité bi ngeen ñëw wuy si Kumba Gissé mi nga xamante ne li muy def ci société dal na xel macha allah ñoo ngi lay féliciter dina encourage rendez-vous jeudi prochain incha ci beneen actualité comme ni ñu koy tàmm defee